Écoutez et vous entendrez. Regardez, vous verrez. Dès son jeune âge, il a commencé à tâter le micro et aujourd'hui, il devient l'un des plus grands animateurs de ce pays. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter le fils de Saint-Louis du Sénégal, le du Mesdames, Messieurs, voici DJ Kheucha. Le prince est là, Richard from Saint-Louis du Sénégal. Il a un savoir-faire inouï. Il est éloquent. yéen fi nekk ci ligne bi salaamaaleykum. what's your name. di Ndiakhate ma lay déggee. yow waxal waay. akuk sig lañ wax. waxtaanee ko rek foo. gis naa sax doy na. fraîche pétrie de talent avec beaucoup de style. li nga tënkee lan la. a ah, man sa yére bi rek moo may rey quoi. yaa ngi toj tiktok bi yow. suba la ma la mais mu jag jag yi xaaral ma laalat bant. Mesdames, Messieurs, tous les artistes qui font le buzz, tous les artistes qu'on avait presque oubliés et tous les artistes qui veulent de la visibilité et de la promotion passent ipto facto par lui, car c'est l'animateur du moment. yow moo ma def yow. franchement ça c'est sucré. def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen bu ngeen ko deful ni ko yàlla def kat mu cravaché leen ba ngeen tëdd xëcaa yaa du lundi au de 11h à 13h sur la 2STV ne le ratez pas. véritablement c'est tout simplement magnifique la prise de voix véritablement. de Pape Djibril Fall j'adore Pape Sidi j'adore cette voix magnifique machallah merci beaucoup et bienvenue à mes chers téléspectateurs on est lundi et je vais chanter pour vous lundi matin le roi sa femme et son petit prince sont venus chez moi pour me serrer la main mais comme je ne suis pas là le petit prince a dit Puisque c'est comme ça, nous allons regarder Kheucha. Amis chers téléspectateurs, quel plaisir de vous retrouver ici au Parc des Princes de la 2 contentement mbégteek banneex am na mbégte ngir janawaat ak yéen ndax xam naa ni namoon ngeen ma loolu depuis mercredi gisu leen ma te xam ngeen ni bu ngeen mën a mee benn dama koy yëg ci sama yaram ba tax na fu ma toog rek dama leen di xalaat maa ngi leen di kontaane bu baax a baax bonjour à tous qui nous regardent de l'autre côté à l'étranger en France en Italie Belgique Hollande aux États-Unis Canada foofu nga xamante ni moom moo di ci Allemagne bonjour également à tous qui nous regardent ici en Afrique Mali Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire Zimbabwe cap di ca Guinée Bissau Guinée Conakry on regarde également de l'autre côté foofu nga xamante ni euh, moom di ca Cameroun en tout cas nous sommes très très fiers des de la diaspora bàcc li gën koo mu gën a ndax ma gis gën a gis bi foofa daal di toj maa ngi leen di kontaane tous qui nous regardons également en Mauritanie Wanebik Mauritanie Maraxbabik Mauritanie maa ngi leen di bu baax a baax yéen tam euh, di leen jox seen wàccuwaay bonjour Gambian people a a revoir all Gambian people également euh, di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñi nga xamante euh, saa su ne ngi toog janook euh, télévision bi nga xam ni moom leen di accompagner de 11h à 13 di seen émission bi leen di accompagner di 11 13 kontaan naa bu baax a baax a baax a baax all people mais également di nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi seetaan fii ci Ndakaaru Ndiaye Jal Diop Sangomar yéen tam maa ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu ba a ngi ah, bu rëy 14 euh, yéen itam maa ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen wax euh, préparez-vous davantage parce que ça sera du lourd avec le leader Wally Balago Seck le décembre inchallah bonjour également salut du Sénégal ma région ma fierté waaye bokk également ci nga xamante ni ñu ngi di seetaan euh, foofu nga xamante ni moom Dagana Sédhiou waa Kolda itam fàttewuma leen waa Bakel fàttewuma leen waa Kaffrine foofu nga xamante ni moom moo di ca Ziguinchor Fatick séeréer nga xam ne dañoo a baax a baax tukulóor ya fa rafet a jours en tout cas euh, gis ngeen euh, seen doom a ngi seen xarit a ngi nii seen rakk a ngi nii seen frère a ngi seen grand frère a ngi nii muy xëcha seen tonton la a baax a euh, ni moom moo di Ngaye Mexe a baax El Malick bërki démb laa xam ni bëgguloo ma ni dama xawoon tawat ñëw naa ba ci télé bi dinaa leen nettali li ma jotoon jaar mais gis nga ñi ngi naan balaa ngay xam say noonu nga ne ay tolof tolof wala ay jafe-jafe yooyu yëpp dinañ ko leeral léegi léegi alaaji bàcci kii wala ku ñàkk fayda gi kii yéen naa leen Grégoire bëgguma bu du ma ko sax tudd turam du ma ko tudd di ko nuyu léegi euh, euh, euh, mon ami Eve de valeur et de fidélité l'international maa ngi koy siyaare Abel maa ngi koy siyaare bu baax a baax alors très rapidement pour votre plaisir amis chers téléspectateurs ñu dem sunu séance d'étirement daal di leen bégal et on revient c'est parti boy Le PDG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 seen xol génne lépp lu leen metti woon fay sama noon def ko sama bor ala accu dama yokk jom dama boo jantal sañse dëgg daaj te nekk ma menuisier Instagram TikTok Snapchat WhatsApp fépp la polluer si bi sa MC di ko sama marinade yéen ñëpp la xewil ni marima yokk ci tama def ci sama marimba su la neexul demal gasi kamp ñun dañuy bégee ku fi si su nekk mbële amoo kattan da nga tële <laughs> jàllal na le MC du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 sur le plateau amis chers téléspectateurs kontaan na am na mbégte bu baax a baax a baax j'ai reçu euh, pas mal de messages pas mal d'appels l'autre fois euh, euh, ma bëggoon leen xamal ni leen rek jeudi passé maa ngi fi woon comme ni ngeen ko gisee pare woon naa pour def li nga xam ni moom moo di 11 13 waaye jaam ak pexem yàlla ak dogalam yàlla dogal ci boppam bi ma ñëwee ba taxaw fii gaañ yi kii <laughs> sëñ Bamba Mbàkke yéen daal bu ma leen nettalee li ma dal jeudi bu leen ko déglu déglu leen ma ngeen déglu ma rek te man ñëw naa pour def émission mais dama réer dama réere ji woon bi ci ci guddi gi léegi man la ma réeree moo ma sonal ci matinal bi je sais pas si je me fais comprendre man bi mu ñëwee ba taxaw non mu ne ma doo taxaw yow doo taxaw da ngay dem ma dem ñëwaat bëgg commencé mu ne ma doo taxawaat da ngay dellu léegi ma delluwaat je sais pas si je me fais comprendre xaw ma ba xam yéen a may comprendre de lii wa tax émission bi amul parce que mm, finalement ci buntu douze bi laa yendu fa laa yendu ala falan ma indilee añ <laughs> tellement que wax dëgg yàlla la ma daloon moom wax dëgg yàlla métti na lool waaye xam leen nii amoon nañu yéene accompagner leen de onze heures à treize heures ñëwati nañu euh, te euh, tey dañ koy dabee te xam naa ni lundi yaram yi day xaw a tayal tuuti euh, raison pour laquelle damay ñëw rek ak ambiance bu doy ngir mën leen bégal yéen ñi toog seen kër di seetaane un peu partout mën bég waaye li nga xam ni moom moo di Euh, numéro baa ngoogu 88 628 14 13 à l'international euh, euh, je vous rappelle que tey bëgg naa seen ay vidéo yu bari yoo xam ne dinaa ko teg ndaxte man tam namoon naa leen waaye itam ngeen préparé wu davantage ci kanam tuuti dinaa leen jox thème bi nga xam ne moom la ñu war a leen aussi yenn événement yi fi nar am yëpp yëpp yëpp ci kanam mais bi en avant ça mën na dem def seen séance d'étirement yéen bi ngeen bëgg def ko seen xol bu noppee nag ñu daal dugg xool ñoom la ñu bëggal seen bopp et on revient parti boy ayca ayca ayca ayca ayca ayca ayca baj foo toll nay gaaw nay gaaw nay gaaw dafa mel na nag euh, da nga yeewul bu fekkee ni baax na mën nañ ci dem très rapidement ñu ñëwaat euh, mën a bëggal gaañ yi Merci beaucoup pour l'intro. J'adore cette chanson également Cheikh Niane Sidiki euh, Diabaté compagnie également de l'international ki nga xamante ni moom euh, moo di euh, Benjamin merci beaucoup Mbaye si affaire yi teg ngeen ko ca fa ngeen ko war teg kon ñu ngi beeg ayca ibil leen ko Alaaji Bachiri maa ngi jot ay message 88 heures xool ko bu baax 628 14 13 à l'international 33 841 23 34 tey nag le lundi dañ leen di ibil ak de la bonne musique yéen ñu mu nekk seen kër mën a kontaan wax naa ko léegi ña nga ca ña nga ca di nuyu Fama noo def ani la famille 88 628 14 13 bonjour. salaamaaleykum waaw mais kii kan la. sama kërit baay jeex. mais lu ko jeexal nu mu demee noonu. xaj ko saa siyaar naa la. mais delloo siyaar moo très cher ami naka mu. Baye Baye tala ani fu sari style Baye. kan la allo. waaw allo. waaw anniversaire Mala Samuel Diop. waaw Samuel anniversaire kan la. sari Sadick Saara. waaw depuis Malika. Eh, kon Sadick ñu koy ñu koy ñu ngi koy xoolal ñu koy ñaanal lu baax yow. ki sa jox ku a ngi nii ayca Sadick Sarr joyeux anniversaire happy birthday to you euh, maa ngi lay siyaare fexe leen nag ba fu kenn nekk fi naan ma ay sa beer yi rafetul ak yooyu te ña tàmm ngeen su ma takkee samay beer ngeen naan ma tekki ka. ndax ñu gis sa bët yi sew baleen maak samay verre ma takk ko nii laa ko bëggee ay ca xam naa leen Grégoire sa sa mbokk yi nga xam ni euh, euh, ñi ma bañ ñi ñi mel ni yow ñoo yooyu la def mais amul problème alors euh, les amis comme ni ma leen ko waxee nag tey la lundi et que xam ngeen ni nouveauté yi jot a ci toile bi dinañ leen ci may yéen ñi nekk seen kër mën cee kontaan waaye li nga xamante bëgg ngeen ko également mën ngeen wootee toujours ci et préparez-vous jël ki ne ci ligne bi salaamaaleykum allô. allô. oui bonjour. ça va. ça va bien et ye woote Gambie. yaa ngi calling from Gambia. maman woote woon last time foofu noonu. oh so glad. what's your name please. xas dama laa bëgg. danga maa bugg a de yow foo ma def yow foo ma def yow. sa biir xool bi. yow sa biir xool bi daa noonu toog noonu man ma ma toog noonu sa biir xool bi di jàpp sama ñaamur man. da ngaa wàññi télé bi boo wàññiwul télévision bi xoolal doo ma mën a. dégg boo wàññiwul télé bi doo ma mën a dégg bu baax so bu may kóolaa da ngaa wàññi télé bi boo ma boo wàññiwul télé ma mën a dégg dégg de sa dégg dégg bi du du leer mais bu fekkee ko rek après bi dina leer dégg ma ah ayca maa ngi bu baax a baax a baax eh, ci moom eh, a eh, bi ma call from Gambia so Gambian people maa ngi leen ah, only inshallah will be in Gambia and that will be crazy inshallah with the Uweekend the artist passionate of African music um, ah, inshallah kon na ngeen ko xaar 11 13 dinaa ko déplacé

képp kuy télé di nga tëj man maa ko wax parce que programme yi ñu am rendez-vous yi ñu am wax dëgg yàlla ñun ñi ngi waaj loo xamante ni euh, déjà man maa ngi waaj euh, euh, décorer sama plateau bi parce que xam ngeen ni nooy lii léegi mu dugg si déjà sedd na ñu bare sangu wunu tey Grégoire bi ma xoolee tëstan da leen xool tëstanu nit ñi ku ngeen xool tëstanam mu weex xam leen ni sanguwul ci laa xam ni Grégoire dafa moom moom sedd moom musu ko ñemee parce que yaram bi nee moom xam nga dafa dépassé âge am donc yaram bi bu sedd bi duggee da koy sonal de telle sorte que du sangu lu bari maanaam day raxas kanam gi raxas loxo yi laal tànk yi rek génn dox li ma la xamalee bu ma ko waxoon dëkk bi toj Grégoire rek leen rek 88 628 14 nekk si ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam Xaza. ah mais très loo ma wooyee yow. maa lay bégee day waxal rek. Xaza. <laughs> waxal Xaza. comme <laughs> waxal rek doom nag. Malick Mbaye la Faramareen bi maa lay koolee Gambie. waaw Malick waaw waaw xëcaa ba pare. xëcaa. ah. ayca Malick from Gambia maa ngi lay siyaare what's bro. hello. ayca thank you thank you thank you for calling Malick from Gambia maa ngi koy siyaare faramaren bi uh, maa ngi lay siyaare xam naa ne yow kon yaa ngi waaj bésu Mohamed Touré bi uh, foofu ca Gambia incha kon maa ngi lay nuyu bu baax a baax uh, sama xarit boobu woote léegi léegi from Gambia as you know Gambian people are my second family they love me well and I love them too so man ak ñoom su ma mbëggeel ak seen mbëggeel ci man dafa jéggi dayoo kontaan naa ci all Gambian people 88 628 14 13 salaamaaleykum. Ah, eh, allo. waaw Kheucha. yaa très cher ami de valeur et de fidélité. maa ngi lay ziar. maa ngi lay siyaare. waaw na ci loo maa ngi am jàmm yow yaa ngi am jàmm. waaw ñooy sant bu baax sax. naka sa dugg daa mi ngi dalax. waaw waaw muy dalax ndànk ndànk rek alors noo tudd ak fan ngay wootee. ma la sa xarit bi am waali. am. am waali. am waali. waaw mais waali am yéen saa ji ngeen ne ni waaw di waaj événement yi rek. ah. di waaj événement yi rek. ah di waaj événement bi ban événement la ci événement yi. waaw man de maay waaj bu tëngeej bi. bu tëngeej bi le 4. le 4 incha allah. ah waaw waaw waaj ko boobu sax sama yoon nekkul beneen télé la dem man waa nag eh, man man ma warul jël. événement déglu ma rek ma warul jël événement yi di ko yóbbu yeneen télé non du moom sax promoteur bi la kon nag man sax boobu sama yoon nekkul ci. <laughs> du yoon de du yoon de non damay toog ji li ngoone euh, ñaa ngi leen di nuyu bu baax a baax dañuy liggéey ak la 2STV kon ñi ngi leen di kontaane euh, ci euh, seen événement boobu la 4 foofu ca Rufisque dina neex dina yëngu moo nam yow foo dëkkee mais xasa da nga war a ñëw ah luy loolu damay jaar kay yéen bu ma jaarul leen ah. yéen bu ma jaarul du ngeen am lu ngeen bëgg di waaw waaw xam moom waa Tëngéej moom dina la nam te yow mosoo ñëw Tëngéej xam ngeen ni faw ma jaar ni leen Latt Joobe déggeen mbaay jot démba déggeen korofaale déggeen démbay sa déggeen mbaay yéen ñëpp yooxu man leen man may sa bige may sa bige maat ajib naara nga con njarka demba nga lambaay njii noo nji faramaaren ngeen daanu ma tegal leen ni leen ay xam nga lii foog ma defal leen ko non loolu amee ah, waa Kaolack nga ci benn dencal waa nangaan yaa ngi lay la waaw boobu bés boobu bés. faama faama faama boobu bés. ci <laughs> sëñ Tamba mais mon ami. ay ca kontaan naa ci moom bu baax a baax a baax euh, di ko ñoo euh, ñoo ngay waaj le 4 waaye itam le 11 waa Kaolack ñi en euh, ji Fama moom nga xam ne wax dëgg yàlla man ak moom dañoo yàgg bokk ci bët moom itam maa ngi koy bu baax a baax di ki nga xamante ni moom moo di ma jumelle de valeur Magui maa ngi lay xaare bu baax a baax a a baax baax waaye itam ki nga xamante ni moom moo di Kati Kati baby waaye yow lu xew <laughs> lu xew a ngi foofu ngeen koy ñam xoolal

jox ko joxal ma ko grand rakk salaamaaleykum. salaam. maa ngi lay siyaare très cher ami. Kheucha eh, ça va. oui bien alhamdulilah et toi yaa ngi cool. oui bien. waaw je vois que ni da nga nga xaw a parce que xam nga nit des fois mu wax toog rek da ngay xam ni kii il a quelque chose dans la tête fooy wootee. Euh, maa ngi Dakar. yaa ngi Dakar. ok mon euh, oh, bëggoon wax thème bi ma ko mon ami donc euh, mon ami. oui. de notre thème le thème du jour. Euh, mi ngi euh, coïncider ci li nga xamante ni moom moo di amour à distance. Euh, en fait moi moi j'ai quelque chose j'ai des problèmes. problème. je voudrais des gens qui veulent m'aider. problème de quoi mon ami. na si vous pouvez me laisser votre numéro. après je ah. vous contacterai. yow tu as des problèmes. oui. pourtant moi aussi j'ai des problèmes de. <laughs> <laughs> oui, je le connais, mais euh, euh, en fait, euh, vous savez, vous connaissez les difficultés de la vie. Ouais, ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Bon, euh, je, vais, vous laisser mon numéro. Juste après, nous allons essayer de communiquer. Ça te dit Ok, à merci beaucoup pour l'appel quand même. merci beaucoup ñi ngi koy kontaane bu baax a baax a baax ndeysaan moom mi ngi seetaan waaye nee na dafa am ay souci euh, souci wu àddina nag kuy dox ku ne rek am na ko borom milliards yi sax ñi nga am ay souci yoo xam ne bëgg nañ ko gérer euh, kon nag kii ñëpp am problème bul xeebal kenn problème am man mi di wax ak yéen am naa problème woo xam ne su ma leen ko waxoon fii tam ngeen defal ma cotisation est-ce que sax waaye eh, dëggantaan jaay yéen su ma leen ko waxoon da ngeen ma demal ko <laughs> sëñ ta kon gërëm gaa yi njëkk joxe numéro am naan bon man la numéro numéro bi numéro xëcc la arrête de faire genre mon gars ayca euh, revenons dans notre mouton revenons ici au Sénégal avec l'international Mastar j'adore cette fille j'adore sa voix j'adore euh, euh, accoutrement wam ni muy woyee ay feeling am non dafa doy waar cette demoiselle ou bien cette dame même 88 628 14 13 ñu jël ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi na nga def. waaw maa ngi lay siyaare bu baax a baax naka la gaañ. ñu ngi ñu ngi dellu siyaar bi. baa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax. macha allah alors maa ngi lay siyaare bu baax a baax foo noo tudd ak fan ngay wootee. Babacar Cissé. Babacar Cissé ngaari njarum meew yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax maa ngi lay seetaan nii. ah ah. ah. waaw maa lay seetaan Thiamène Sanc. yaa ngi fan. fan. ayca alo moom dégg ma bu baax a baax fi muy euh, euh, waxee wala fa mu dëkk waaye ñi ngi koy kontaane mën na ñëwaat euh, ci 88 628 14 c'est vrai que sama chemise bi dafa rafet je vois pas mal de messages recherche sa sa chemise daal mais arrêtez de de de de me cette question yéen xam ngeen ni sañse moom sañse moom bu ñu waxee dëgg rek gërëgoire du ñu waxante dëgg fii man keroog dama dama def sama sañse tag abaa sama xarit abano moom a njëkk ni sen moom xam na ne rek man dama mën sañse booba moom daka naan mooy fils couleur bi daf may woone moom mais xëca te dama bëgg sol chemise bu rouge loo la war a àndal ma jox ko couleur moom xam na ni ma tellement que animateur yi xam na ni man maa daax sañse 88 19 28 14 13 salaamaaleykum waaw maa lay siyaare wani bi xaca ma ngi woote Mauritanie manax ça va noo def. yaa ngi wootee Mauritanie xanaa. ça va bien. ah maa ngi leen di siyaare. aywa aywa. wani big wani big. wani big wa hashtag. wani big. wani big waaw wani big moom mooy wani big wala big la. maa ngi wootee Mauritanie man la Maymuna Tumbu. ah Maymuna maa ngi lay nuyu naka waa Mauritanie Maymuna. waaw eh, Mauritanie di la ziar di la. dégg maa ngi leen di kontaane xanaa da ngeen ma namoon. oh dama na moon trop. ii jeudi jeudi li ma daloon mën naa dal ku ne. ah. <laughs> ma ne li ma daloon jeudi ba ñëw ma. ah. waaw jeudi ñëw naa mais li ma daloon mën na dal ku ne. oh. ah, ah. gara du tàggoo moom du tàggoo moom day jeg saa rek di. Grégoire Grégoire eh. waa Grégoire da def nii yéen. Eh. mais Grégoire da eh, ngay ah. j'étais malade de lii sax du image boobu noonu. allo waaw allo waaw. xaaral ah, ma paase sama rakk bi Khadija. a man a yow la sa numéro benn ah, ah dañ fa am benn maire ba nga xam ne moom mooy maire Waly mi ngi tudd Ndouga Tumbu maire Waly ane mu maire Waly mi ngi nii di toog moom Waly rek moo ko tee nelaw moom rek ndeysaan ndeysaan na koy ñaanal na koy ñaanal rek yàlla baax na wallaay yow nag moom yal na la yàlla may gudd fan ak yéen ñun saa ñu ñu si yow toujours di leen bégal ci kattanu yàlla ngeen di gën a kontaan nañu si yow bu baax yàlla kontaan si yow wuy da ngay def benn vidéo

aywa ok woon na zik woon na zik. léegi ngeen nuyu ma ma kontaan. xam nga lan moo neex. waaw lu leen neex. xam nga ensemble boobu nga musoon sol jour avant kër affaire naar yooyu. grand mbubb bi ak caay bi. waaw boobu dafa doy waar. yow boobu dafa naay. dafa jàpp xaar xoola Grégoire dina leen indil vidéo bi. yow il faut nga il faut nga sañse sañse boobu encore. xoola Grégoire dina leen indil vidéo bi léegi tegal leen ko. ak bi caay bi. waaw caay bu bi waaye caay moo cëkk caay bi fii la ma yemoon fii fii. xoolal xam nga laa lay ñaan di tegal ma benn morceau bu ma neex. ban morceau la. dem ba gisee yaama yaama. tegal ma ko bi nga bëgg. waaw waaw léegi laa la koy laal sa xol daal di sedd incha allah. ah xam naa dinañ wan a baax kontaan naa tey. amin amin ndeysaan kontaan naa gërëm wax dëgg yàlla waa waa raay bi waaw wane bi wane bi ñoom pare la ndeysaan gërë xoolal xoolal gërë xaaral ma ñëw xaaral ma ma ñëw wanni wanni wanni wanni wanni yaama baa ngi ñëw ci suuf léegi gërë gis nga Raaya Musique Awards nag eh, xam naa man ak yow ci la ñuy jëlee congé ci la ñu madame Ndiaye di nammee man ak yow tax ndax yow bu may dem dafay dem parce que ñooy jëlandoo man a yow dañoo xew ci jamono instant yi nii nañ waxante dëgg rek gere léegi nag bu ñu joxul suñu raaya bi ak li nga liggéey ci émission bi 11 13 boobaa ak léegi ànd ceeg ngaay mama Roqeya ah ànd ceeg euh, euh, euh, ki nga xamante ni moom moo di maa Maane ñu yëngal dëkk bi ak caméraman yu mucc ay bii nekk 2S bu ñu joxul suñu raaya bi dañuy arrêté bu ñu arrêté nag ñu bàyyi 11 13 ñu xoolee leneen émission man wax naa ko de parce que gis nga waa Mauritanie ngi seetaan waa Gambie Cameroun Belgique France Italie may leen bande annonce bi ñu déglu après ñu dem ci yàmm ñu dem booy ñu bandi bandi lu tuuti man bandi bandi lu tuuti

victoire les amis incha allah le 10 décembre bii la gëré da ngay def sa veste bu nice ma laal sama benn veste bu nice ñu dox daagu ma ak yow comprendre laal sunuy oto wàcci dem jël suñu trophée indi ko waa 2 sagale ko waa 2 parce que nag 11 13 mérité na jël raaya musique bi euh, parmi les émissions les plus suivies au Sénégal et en Afrique ku ne xam ne ni ñun la d'accord bàkkalool bàkkalool bàkkalool ca kaw barke sëñ Bamba indi ma sama xarit bi bàkk ma bàkk ma bakk ma bàkk ma bàkk ma bàkk ma bàkk ma ñu doo ko dem ci yaama gi ba bàkk ma dañoo xew ayca vas-y bàkkal ci suuf nañ dem gere ay ja ay ja ja maa ngi ñëwaat léegi Demba 88 628 14 13 salaamaaleykum maaleykum allo allo waaw waaw mais kii kan la DJ Kheucha waaw man la ko kan la man la Amina Amina maa ngi lay nuyu fooy wootee Medina Medina maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yaa ngi am jàmm maa si jàmm yaa ngi école Amina xanaa jàngoo école yow. déedéet. ñu yàkkamtee bañ a jàng ba seetaan onze li ma leen xamal ah? xale yi. ni ngeen yàkkee ni ngeen yàkkamtee bañ a ba seetaan onze treize. déedéet sax de. ah loolu lan la kon. allo allo alhamdulilah. Ami daal kenn xamutu lu muy añ daal suñu añ saa da koy ndax yow yow sa waay ah. barki Serigne Bamba xale yi tax na na gaaw leen balaa xëcaa commencé lii lan la xëcaa lan la ah. ah mais booy mais booy tamit ah. <laughs> mais xëcaa dafa am lu ma ah allo. Ndeysaan maa ngi kontaan. allo Amina waaw waaw doom waaw. xëcaa. waaw. waaw dafa am lu ma la ay ca waaw. taxawaay bi la taxawaay bi écartement bi laa bëgg nga nga ma ko quoi secret bi quoi taxawaay bi. ban ban la si ban la si. mooy écartement bi rek la mooy boobu nga xàll bi xàll bi. wa wa bii rey nag voilà zoom ko foofu foofu baax na. <laughs> doo ma rey maa ngi kontaan. la famille kontaan naa ci yéen de. waa très cher mais guddal fan Baye Fall barke sëñ leen jàmm yéen itam. barke billaahi booy guddal fan barke li ngay man man ma kontaan ci yéen. léegi léegi léegi naa Medina fii maa fi sa premier kontaan naa mais Baye Amina muy gën a tardel añi kon. waaw waaw waaw Amina day daal añ bi rek. waaw ah, na di tardé rek man bu yëf yi di tardé rek mu may neex ndax man lay seetaan moo tax allo. ay ca jërëjëf ña nga ca Amina ñoom itam toog di seetaan Amina ma belle maa ngi lay nuyu bu baax a baax loo tàddal ci añi euh, doyul del gën a tàddal ndax boo yekkee mu neex ndax sa xol ngay xanaa xamoo booy togg ak xol mu neex ngaay wax na ma ko nee na ma xëcaa man bu may togg wax dëgg yàlla des fois bu ma toggul liggéey nii ma mama roqee liggéey wala euh, mama maane bu may togg di la seetaan non añ boobu mooy dàq bu ma la seetaanul ma ne ko nag loolu ci man la moo tax ceeb boo bëggee mu neex seetaanal xëca ba pare nga doog ko taal si c'est bon Grégoire nanu ànd ak ki nga xamante moom moo Demba Guissé ba tey une très belle chanson ayo bébé waaye lii ñetteel yeeg ñeenteel yëpp dañ cee mere ndaxte boo woyee awa wooy ñaareel waroon nga cey teg ñetteel ak ñeenteel yi ndax ci kër gi lañ bokk 88 628 14 13 salaamaaleykum maaleykum salaam xëca la yow namu naa la maa la raw mere naa ah, nu mu demee noonu man ñaareel xalis jëkkëram laa bëgg a doon nga fecceel aawee ah, eh, bàyyi ñaareel. man maa la wax fecc ma ñaareel yi fecceel naa ñaareel yi. leen <laughs> gis naa moom nga bëgg a doon. waaw. yow bëggoo doon aaw. non non. ah kon am na ay choix yooyu. xaw ma ko. ah waaw. ah am na jigéen ñoo xam ne ñoom bëgguñu nekk ah ah waaye yéen yéen a baax. yéen lii nag moom mooy ku ñàkk siis ku ñàkk siis rek ay def lii. yi ñaareel daal laa bëgg a doon tamit. yow la nga bëgg a doon ñaareel. daf maa neex rek sama choix la. sama yaay lan la moom. dégguma. sama yaay sunu yaay man a yow lan la. ah ah waxanaa. yow nga bëgg a nekk ñaareel. kii de bëgg na yaayam am wujju et gis xale bii de yaay booy xaw ma foo toog di ma seetaan kii bëgg na sunu papa takka la ñaareel moo tax mu bëgg a nekk ñaareel waa kii yéen doyul waat te temps yi nag euh, boo nga maane ñi ngi génn ay wayu koo yoo xam ni ñii naan aaw boo duggee ci këram day xeeñ. <laughs> day xeeñ saw ñaareel day xeeñ waa man daal arrêté leen arrêté de faire genre yi ngeen di def ba aawee ak ñaareel commencé di jënd ay gawe seen kër yi di jënd ay cuuraay gongo yoo xam dañ koy def ci néeg yi parce que dañuy bañ ñuy dugg seen kër yi naa leen da ngeen xeeñ saw bàyyi li ngeen di fooye baaxul ñetteel ak ñeenteel yi moom instant danoo croiser baral <laughs> ndax kenn kenn boolewu leen ci xew mi <laughs> yi baaxul quoi wallaay boole leen ci ñetteel ak ñeenteel wala ma génne leen wooy 88 628 14 13 salaamaaleykum allo Allô Allô Oui, bonjour. Bonjour, ça va Quoi, ça va bien et toi maa ngi woote Mauritanie. ah Mauritanie wan wan bik marax ba bik maa ngi leen di nuyu bu baax a baax. ña ngi fay. ba yéen a ngi am jàmm tudd yow. man Sala Diop laa tudd. ah. Sala Diop. Sala Diop. waa. ayca Sala maa ngi lay nuyu bu baax a baax ñu ngi ci yow doom day. maa lay yaa ngi kuul nag. macha yaa ngi seetaan bu baax. sama yaa waaw waaw. nga ne sa yaay. maanaam. nga ne sa yaay lan. ayca maa ngi nuyu maga ca Mauritanie moom itam toog di seetaan ñu am mbégte euh, di leen kontaane waa Mauritanie gépp di leen jox seen wàccuwaay ñoom ñi nga xam ne wax dëgg yàlla wane nañ seen doole seen amour seen cofeel ci émission bi nga xam ni euh, moom moo leen di accompagner de 11h à 13h xam nga fi ñu jógee nii Grégoire musique la boo xam ne nii la def donc boo defaatee nii rek da ngay casser rythme bi da ngay ñëw ci ki nga xamante ni moom moo di Ibro Nadio ko parce que foofu la toll musique doo ñëw rek ni ni il faut nga comprendre affaire yi donc da bu defee nii da ngay aj di aj baar bi di aj baar bi pour gars yi di gën di bég donc fa lañ jëm après dégg nga 88 628 14 13 mbokk mi ci ligne bi bonjour salaamaaleykum allo. ay ayca euh, préparez-vous davantage parlez-moi de l'amour à distance la la mën a def ci euh, est-ce que loolu euh, dina doxal mbëggeel yéen ñi nga xamante ni vous êtes doué sur ça xam ngeen ci wàllu mbëggeel mën ngeen ci wane seen cofeel wala bu fekkee mas ngeen dundu amour à distance ngay dund koo xam ne nekk fii il est à l'étranger ou elle à l'étranger man dund naa ko ay yoon yoon yoon mais doxut ci <laughs> sëñ ta doxut de donc de moom kay noo jekk saa rek di bant parce que temps bi abi allo yow foo ne looy def dafa bari kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog woote leen seen euh, euh, li nga xam ni moom moo di seen euh, xalaat ah ci thème bile ndax décembre la dugg nii te bu ñu duggee ci décembre lu neex rek mois de fête la mois de joie de bonheur ah lépp luy naqar rek nañ ko tegee ne la ñu judd ci décembre am ngeen chance parce que yéen ñëpp leen ñëpp bëgg gré ñu dem xooli booy boobu foofu la niveau dinaa ñëwaat ci leneen bi J'adore cette chanson parce que sa parle d'amour et, je vous je si sa parle d'amour man damay am ay frissons de la chair de poule du ma du ma mën a maîtriser sama bopp Grégoire léegi-léegi wax naa ci amour à distance yow xam naa li nga ci tegale daa bari de telle sorte que nee na amour à distance taf kanamam xam naa li nga ci tegale dafa garaaw de amour à distance gars yi koy dund ñëpp après xam nañu fini fini mais nag am nañu ci am chance yoo xam ni euh, dinañ génn nit benn euh, deux trois mois quatre mois cinq mois ba takk sax ah yooyu day am ah, ci mais dafa metti tellement surtout ci sedd bi ñu jëm nii décembre bi nga xam na <laughs> dara sedd 88 628 14 13 di jël ki nekk ci ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam xësa. waaw mais ko kan la. man la maman. mais man ni may bëggee nii yéen yi ngeen yéen a ngi koy bëggee wala. ñu ngi koy bëggee kay. ah man kontaan naa de yéen kontaan ngeen. kontaan nañu kay. xam nga lan yaram yi day sedd. fo ma koy yéeral ba mu yéeral. waaw kay loolu loolu laa xam. non non Kasa sa numéro dañu bëggoon. fan ngeen dëkk yéen ñoom. Pikine nañu dëkk. yéen a ngi Pikine kan ak kan la. Fatima ak maman. Fatima ak maman yéen a ngi toog di seetaan. ah. yéen a ngi di seetaan. ñu ngi toog nii di seetaan Kasa en direct. ayca kontaan naa léegi xoolal jëlal numéro bi. allo Kasa. oui bonjour. maman. ay wàññi leen télé bi nag wàññi leen télé bi. am la. bu bu leen yokku télé bi bu leen yokku télé bi sinon day am décalage. xësaa. waaw maa ngi lay nuyu. <laughs> man de bu ñu nee xësaa rek. nam mi loo nekk. maa ngi nii rek sama jigéen yaa ngi am jàmm. ayca ñi ngi koy kontaane ngeen di wàññi télé bi gis nga day am décalage damay wax doo ngay wax te kenn du xam sa morom la muy wax euh, Gré laataa ñuy dugg ci deuxième partie bi mën na dem page pub euh, Fama maa ngi lay nuyu Gaye Massiré di la kontaane léegi-léegi laa jaar sa nga may na ngeen neex nag seen ñi ngeen nekkee ni da ngeen ci a génn damay ah, maa ngi lay nuyu magi Saliou sama jigéen jooju aussi euh, di ko kontaane bu baax a baax a baax di nuyu Fama waaye fàttewu ma benn yoon ki nga xamante ni moom moo di l'international kat yi waaye itam ki nga xamante ni moo di Bird Bass maa ngi leen di nuyu sama gaay yéen a nga ca kaw nga ni ma ca kaw mi Gré ñu dem page pub et on revient très rapidement seet si waat ki nga xamante ni moom moo di grande Nanko ak Grand Touré Manim Mori si c'est bon page pub c'est parti ah boy yaa ngi koy yolomal de looy def ni <laughs> da nga doy waar tamit de am na ay page pub yu war a daw de onze le onze Kaolack bi ah waqa wool wool mama satu léegi léegi moom war na koo dawal xanaa da ko fàttee lii lan la fii la war a dugg fii la war a dugg fii fii lay dugg fii lañ ko kiiwee lañ ko fayee ah? Grégoire gaawal gaawal nga wax ma lu leer ci loolu ndax tey ñu ngi ci euh, deuxième partie bi te dañu war a yëngal léegi léegi euh, gaa ñi mën a bekk ñoom ñu toog seen kër euh, di seetaan donc juste avant ñu dem ci page pub bi donc mën nañu accompagner wu ak ki nga xamante ni très rapidement moom moo di El Hadj Keita borom Médina nuyu waa Médina yi fa toogoon léegi léegi Amina et la famille may naa leen woyu El Hadj Keita bi nga xamante ni c'est le Neymar junior de la musique allo. allo. waaw ko kan la. Géja depuis Thiawane Pël. depuis Thiawane Pël comment. depuis Thiawane Pël TP. noo tudd waaye dëgg man. Géja Géja. yaa TP di neexal loolu Thiawane Pël rek. waa eh eh waa Xisa del mooy waa TP yow tamit. waa Thiawane Pël waaw naa leen di naa leen siyaare. wa waaw comme que Pël yaa ngi yaa ngi yaa ngi tukkal àddina. bay lay wax nii booy fis. barki Serigne Saliou xam nga li ngay def dafa neex. barki Serigne Sall kon yéen a ngi ciy yëg seen bopp. ñoo ngi ciy yëg bu ah, baax kay ak waa Gambie léegi léegi dégg nga leen nee nañ ñoom kontaan nañ de. ñaay dañoo kontaan trop. kon waa Sénégal itam waa waa Tivaouane Peulh kontaan nañ. ñëpp kontaan ah, sa saa billaay. mbaa kontaan ngeen. billaay waaw may ma Carlou D Carlou D. Carlou nga bëgg. waaw waaw dina la ko xoolal léegi-léegi waaye fi rythme bi nekk ñu xool ban musique moo ci ànd ak moom ñu indiko ko dégg nga parce que ambiance bi waaw waaw d'accord merci beaucoup ay kontaan naa sama jigéen maa gën a kontaan merci beaucoup depuis Tivaouane Peulh ñu ngi bu baax a baax on poursuit et on termine ak El Hadj Keita ba tey gré allo oui très cher ami de valeur waay salaamaaleykum Bijé waaw maa ngi lay charé bu baax a baax tur bi naka la e fan ngay wootee man la Mody Niass Cameroun eh Mody Niass borom Cameroun maa ngi lay siyaare mon ami de valeur waaw Philippe Philippe Yaoundé yéen ngi waaj bés bi kan bi incha allah en janvier. oui ñoo ngi koy préparé bu baax ah, sax. ah ba réservé nga ma sama hôtel bi foofu. non amul problème ah, rafet naa ko yàgg. Cameroun dama ko war a wàcce ñaar. non ñëwoon ñëwoon ñëwoon. le problème ah naka du ma yóbbu Guérégaar fii laa koy bàyyi. non wax dëgg yàlla bëgg nañu koo gis na ah. ah? bëgg nañoo gis Guérégaar trop. Guérégaar ak gàttaayam bi loo ciy bëgg a gis Mody Niass boo boo ma gisee daa soxla ngay gis Guérégaar yow tamit <laughs> ah. sinon ça va quand même. waaw mais ça va alhamdulilah ba yaa ngi yegg sa bopp ci émission bi. waay wax dëgg ñoo ngi koy yëg bu baax a baax sax fi mu toll nii. mais mais mais Mody tey maa fi invité bii groupe. oui. non booy yooyu dañoo ci jamono de Mody. nga amul problème ñoo ngi a xaar ñoo ngi lay xaar. xaar leen ñi ngi ñi ngi fi toog yu doy waar yoo xamante ne fii gars yi bu ñu dof dof nii booy dan doon de. waaw di gars yi naan sànq di nga di encore waaw rek la rek booy yi ñëw nañ de ah, ah bu ma wax bu ma waxee teew nañ rek gars yi xam fi ma waxee mais gars yi ngi ñëw. amul benn problème waaw waaw mayal ma sama benn jabar ju baax bu nekk ro Sénégal tudd Ndeye Diop. parlant de jabar moo di moo di amour à distance yow di nga ko dund yow. <laughs> Ah? amour à distance mbëggeel boo xam ne distance la maanaam yaa ngi Cameroun ma nga Sénégal wala nga nekk ci. waaw ah. nekk Saint-Louis sax waaw loolu sax sorewul mais euh, ba tey ci distance bi la. yow yaa ngi koy dund waaw ah. en tout cas day na waar daal moom. dund nga ko dund nga ko. waaye dund naa dund naa ko. waaye da ngeen mujj bàyyante ah. noo ba léegi ba léegi affaire bi day nekk. ba léegi yaa ngi koy doxal. ah waaw. na doo ragal nag yow yow yow mooy sa secret kon ba nga jàpp xale bi noonu teg ko ci poñ noonu booba. <laughs> non si télé su télé lu nekk quoi bu doon hors antenne sax moo wax la ko quoi. <laughs> mais ñamal ma ji mel ni secret moo di jàppale ma sama xarit nga. parce que amul à. dis sama waay nga sama nga ah, suuf nga jox ma ko après. <laughs> waaw incha allah. kon maa ngi lay kontaane ak Kasa ñoo lay bëggee. am ñu mbégte am na ñu mbégte. ña nga ca ñoom itam di seetaan gis nga Gambie Cameroun Burkina Faso Mauritanie amuñu seen fay daal yéen toog di safoo émission bi leen di accompagner de 11h à 13 euh, rapidement euh, Gré euh, ci beneen ambiance bi nu jëm ndax gars yi dama leen bëgg jox assez de temps fii ci biir Parc des Princes mooy nan dem seeti Sidi Diop nan dem seeti Sidi Diop te jaagu mbaas may ko Fama Gaye ak équipe ba mu àndal et eh, kat ana ngeen ana mag jël waaw ah, xasaayoo. waa kii kan la. li ngay def neex na trop. mi ngi dugg seen xol. waaw waaw bu baax yéen a ngi kontaan. waaw waaw. eh mais kon kontaan naa. maa ngi lay bëggee bu baax. maa ngi lay delloo bëggee nu tudd ak fan ngay wootee. damay toog di ndekki di seetaan sa émission. dëgg la Ndeysaan dofu leen xam li ngeen bëgg xanaa xamoo nit bu. xamee damay toog rek di reetaan c'est ça. Ndeysaan ma ne nit bu xamee lu mu bëgg du xaar ku ko wax da koy ñëw rek def. te yéen da ngeen xam li ngeen bëgg moo tax ak émission bu mën a daw ci télé fajar 11h 13 xësaa ngeen seetaan. yaa ngi bëggal ñun ñi. waaw ah, li la yàlla dogal ba ci sëñ Tuubaa mais fooy wootee nii. maa ngi koy kontaane sama jigéen jooju ñu terminé ak Sidi Diop ba tey jaagu mbas gi gré.

C'est quel DJ J'adore cette hein? chanson parce que ça parle. C'est quel DJ C'est DJ Koussa. Si ça parle d'amour, DJ Koussa. La chair de poule. Ça va Ça va ma chef bi ma war a sabati ji nag soo nekk si di jëf saa mooy la moo jaaxale xanaa bëgg ko rek. déjà ni ñu la bëggee franc. Hmm, je t'aime. I love you. I love you. xoolal kee moom ñëpp la bëgg fii bilaay. DJ Kasa ñu ngi lay seetaan fii ci Richard Toll ñu lay seetaan ñu ngi toog di noppalu waaw xëy ba ñëwaat ah toog di noppalu di seetaan DJ Kasa ah DJ Kasa ah fii ci Richard Toll ah. maamu denc si nga baas kamara baas si nga saabu. Béyee lañ la def baax ak Serigne respect respect respect le monde entier Sénégal Mali Gambie Burkina Faso Bénin Côte d'Ivoire Cameroun euh, France Italie Belgique Hollande monde entier bi yëpp jërë ngeen jëfati jërë ci seen amour euh, bi ngeen am ci 11 13 laa ciy àndal su ma leen di xool moo tax 11 euh, daf ma gënal sax émission bi nee Grégoire faw vidéo yi di ñëw ma xool nit ñi ñoom itam naka la toogee seen kër ndeysaan sama xol laa ko tibbee Aïcha on termine avec Wally Barago Manga Lambaay jiinooji Faramareen l'homme du 11 décembre foofu nga xamante ni moom moo di ca Kaolack nangaan esat ba dana mel na tuq sa bënn bu sañ bereer gële tegal ma ci waali bi ma la tegal ay ca booy c'est parti beaucoup Grégoire nag da ngay toog ci régie bi nag nga liggéey ay sama geste yi ma fiy def nii way yi nga xam ne dafa am sens ma wan nit ñi nga toog noonu rek jàpp sa ñaamur sa gàttaay boobu li moo tax bu may dem Cameroun du la yóbbu toogal noonu rek nañu xool li nga xamante ni moom moo di euh, rubrique TikTok ba noppi euh, xool euh, joyeux anniversaire yi dalal nag invité de marque yi ñu am tey ngir mën a waxtaan ak ñoom ci temps bu large ma xool li nga xam ni moom moo di rubrique TikTok xool anniversaire yi rubrique TikTok avec le <laughs> sama biir moo doon dem toog ma dem toog si buntu dund sama yaay tegal ma eh, sama yaay tegal ma foofu chaise ak ñaari satala. waaw noppile mais bu jotee rek ma daw heure bu jotee rek ma daw waaye nag lu tax mokk lu ma sama leçon bi sama biir moo doon métti. dëgg la wallaahi sama biir moo doon métti. mais yow yow Imaam rek tànn naa la par quatre. nga ma par quatre de mais monsieur sama biir bu métti woon sama leçon lay jàng. billaay sama leçon lay jàng waaye li hmm? yow ma waa. li yow ma waa. dama jàngoon naa ko keroog. waxaat ma ok d'abord. waaw patron. ça va bàyyi li ngay def kay dama la soxla. mbaa jàmm. jàmm rek am sa enveloppe ngi nii mën nga jël li nga fi am sa bagage yëpp nga bàyyi merci. il ne faut jamais sous-estimer une personne. pardon. jamais. pour quelle raison est-ce que nga may dàq. ok d'abord sama état bi tal naa leneen lu dul ay xuloo tu sors de chez moi point. foo de. ma ñëw fii yéen ñëpp ngeen teg ma dof et pourtant l'habit ne fait pas le lii sama ñaq la maa ko moom je le prends avec grandeur et fierté may dàq dinaa dem de mais avant toute chose une seule chose à retenir nga xam ko tout vient à point à celui qui sait attendre li lay bàcc comme mboq mi ngi ñëw Abdoulaye Sène directeur. Bonsoir mon ami. Bonsoir Medoun. Tu bien? Oui, je bien. Toi, tu bien? Moi, je bien. Oui, même moi, je bien. man man ngay waxal. man yëguma man sax man ngay waxal. beaucoup merci beaucoup le shop Aïcha Leuz nag tey sa TikTok yi nag yow loola neex nga def de tey moom xaw ma da ngaa nekkoon loon démb xaw ma xam nga da ngay taxawaal rek guddi gi foo ngay teel tëddaleuse <laughs> Moustapha borom xombal le janvier ma ngay waaj euh, le 14 janvier plutôt stade municipal ak Lat Diop dégg ngeen nee naa la bés boobu euh, euh, déjà dinaa la boole ak maman Aïssatou nga ñëw fii le 14 janvier Wally Balago Seck foofu ci stade municipal bu xombal waa xombal xam naa yéen ngi tëb di daaju xaar faxaar leen loolu te man damay ñëw te deux heures dañuy kon nag préparez-vous davantage ay te très rapidement les amis alors il est arrivé un moment boo xamante ni sur la scène musicale sénégalaise dafa am benn groupe boo xamante ni jeunes tellement courtois waaye itam yu mën a way ne ci hip hop bi di ko yëngal gaa ñëpp bàyyi leen xel ma bëggal leen sama bopp bu ngeen xoolee euh, euh, euh, fan yi weesu yëpp damay teg ay son parce que man déjà j'adore voir les jeunes chanter et j'adore voir ay jeunes yoo xamante ni ils ont de l'ambition te bokk na ci jeunes yi nga xamante ni ñu ngi nekk foofu nga xamante moom moo di D Records nee naa man damay changer le name D Records tuddee leen bi gang ñii danoo xew ci jamono alo pour votre plaisir regardez c'est à l'instant Grand Djiby si c'est bon Grégoire c'est à 5 4 3 2 1 go. Grégoire Grégoire nekkal nekkal yeewul yeewul gaay na alors mafia bi bu ñu ñëwee mafia bi nga leen di tegal indil ma son wu mafia bi ñu dugg seeg moom gars yi mën a bég bii mu ñëw deuxième partie parce qu'ils vont presser deux chansons si c'est bon c'est parti ayca gars les go. ci ginnaaw maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax whatsapp wala broda yow ñëwal nii bu la neexee ah bu la neexee wala mën a dem ne c'est bon c'est bon mën nga ñëwee nii mën nga ñëwee nii maa ngi leen di siyaare bu baax a baax di record euh, mafia bi gaa yaa ngi nii teew nañu waxoon naa leen di leen teew ci parc des presses ngir bégal nu euh, bari na ñu daan woote di ñaan son bi naan ma xëccan foo nga laalal ñu mafia bi teew na da xaar mais bu naree seet dinañ ko b <laughs> mais gars a baax a baax di leen euh, jox seen nga xamante ni boobaak léegi bëggoon nañ leen gis fii ci Parc des Princes. carrément carrément donc euh, salaamaaleykum Didi Record la Jella Banks mooy wax ak yéen baayu xale yi from Didi Record. nga ne nga ne euh, baayu gat yi baayu booy quoi. waaw mun nga si yokk mun nga si yokk alaaji papa sax bu la ah, neexee. waaw dafay gën a saf rek. dëggantaan dëggantaan donc euh, waaw ñun ñun ñun la mafia bi comme gars ni ko xamee. waaw mafia bi teew na da xaar donc bàyyi ma bàyyi yeneen gars yi nuyoo. waa salaamaaleykum salaamaaleykum DJ Kheucha salaamaaleykum Sénégal ak ñiy suivre émission bi yëpp hmm. man la kamu dëkk Medina from Didi Record xam nga mafia bi bu teewee dara du sedd quoi Mister mu ngi boy a kaw jaajëf Mister Kamu yemaan yemaan salaamaaleykum DJ Kheucha salaamaaleykum ñëpp ñi ñuy suivre mafia bi moo teew bu naree sedd nañ ko bàyyi man la Koul Diss from Didi Record from ñaari tali DJ Kheucha ay yow maa ngi leen di charré bu baax a baax gars yi nag xam xam lu tax ñoom ñu nekk ay nante parce que ñoom ñëpp fu ñu jugee base la gis ngeen fi ñu jugee ñoom ñëpp base la ci Ndakaaru moo tax ñii bu ñu ñëwee foofu ñu yëngal on va parler un petit peu di euh, ci euh, titre bi nga xamante ni tey mën naa ni euh, moom moo def li ngeen doon tey man ci laa leen ràññee ci laa leen xamee muy mafia bi mafia bi d'où vient l'inspiration déjà mafia bi teew na da ngay xaar mafia bi lan lan moo indi le nom mafia bi. waaw bi mun nañ ne l'idée de la

kii après son bi joxe lu mu joxe quoi. yee man alors euh, pourquoi Jokko Dieng la pourquoi le choix euh, yéen ak ki nga xamante ni moom moo di OM déjà yéen a bokk defe naa label. si je ma trompe pas mais tout le temps gis nañ ni moom itam ay participation am ci affaire bi day indaat beneen beneen beneen beneen beneen beneen euh, style day indiwaat beneen affaire bu doy waar vu que ni vous êtes seulement des garçons mais moom ba mu ci duggee rek c'est autre chose le pourquoi ngeen choisir OM pour muy dugg ci affaire bu baax a Euh, c'est pas c'est pas un choix parce que OM mi ngi ci biir. donc euh, mun nañ ne sax ci membre fondateur di di record la bokk. right donc euh, muy muy muy muy muy moom que muy nekk keneen Sénégal dafa dafa soxla touche de féminité boobu noonu. donc euh, ñi di ñi di projeté wala ñi nekk ci biir musique urbaine bi. Mm-hmm. nañu nañu nañu fexe di wane seen féminité quoi. Mm-hmm. pas di rap comme góor wala di woy comme góor. parce loolu dañ koy soxla quoi. Mm. munu munu munu munu ma woo jigéen boo xamante ne nii comme man lay def par exemple. dëgg la te boo te boo xoolee OMG. Mm. OMG presque featuring yëpp moo koy def. Sénégal moom moo fépp featuring man ah. c'est l'artiste numéro un pour moi je l'ai dit la, fois passée woo naa ko euh, euh, invité ko fii ci plateau bi mais OMG elle est unique au Sénégal ah, sa voix ci style de musique boo ko teg da ciy génn macha allah. parce que jéemul rap comme góor jéemul way tamit comme gars yi ku nekk am na li nga xamante ne moo nekk ci yow donc mm. exploiter loolu quoi donc euh, ñu koy saluer tamit bëggoon na ñëw mais waaw noonu la demee fii la jógee keroog fii la jógee bërki démb fii la jógee xam nga affaire jigéen day doy waar aussi en tout cas ñi ngi koy nuyu moom itam bu baax a baax très ami est-ce que euh, euh, xalaatoon ngeen succès bi li nga xamante ni moom moo di mafia bi am son bi ni ko sénégalais yi bëggee man moom wax dëgg yàlla man j'ai teg Grégoire ma non booy li ngay teg gars yi xaa gars yi dan ma ne ko man j'adore tout ce qui est bon et puis c'est euh, bien c'est de voir ces trucs là mafia bi teew na da xaar gars yi dañu war a xaar bi xëcaa teew ba tey dañu xaar lu leen laa leen tegal nii doom day est-ce que euh, xalaatoon ngeen ci succès bi ni mel par rapport ak mafia bi son boobu waaw bon wooy je pense que ne nag xalaatoon nañ ko si euh, parce que suñu njort rafetoon nañ si quoi amoon nañ si yaakaar parce que déjà déjà hmm. que bi bu mu dawee rek hmm. parce que tamit gars yi nañ ci musique am xeetu musique yoo xam ne bu dawee rek nga teg si dara da ngay xam lii mën na def dara mun na indi impact quoi déjà ñu liggéey ko ak naturellement nag tamit jée la comme ni ñu waxee noonu bit bi dafa daw gars yi kontaan rek parce que c'était sénégalais typiquement africain ñu xam ne lii ni ñu laalee nii ci xol hmm. dina laal yeneen sénégalais parce que ñun ñëpp ay sénégalais ñoo bokk benn bëgg-bëgg hmm. muy lu neex ci xol yi loolu rek la waaw xol yi alors mafia bi teew na ñu ngi leen di ñaanal yàlla une très bonne suite avant ñu dem ci beneen titre bi ñu leen tegal léegi gars yi euh, la ci yow laay ñëwaat euh, est-ce que euh, tey mën nañu xaar Euh, groupe bi continuer pour l'éternité parce que dañuy gis groupe bi bëree bëri bëri bëri dañuy bokk label mais après kenn day dem keneen dem mu dem ba ku nekk jël sa yoonu bopp est-ce que mën nu xaar vraiment euh, yéen ñi ñu gis leen un peu partout dans le monde ci yenn saali yi euh, Bercy et un peu partout ngeen ànd ak groupe bi est-ce que am ngeen yéena boobu mbébét boobu ba seytaane du mën a dugg seen diggante déjà déjà maa ngi maa ngi rafetlu nekkinu gars yi parce que maturité la ñuy dawal quoi mënoon nañ ne maa ngi soog a ñëw xam nga duñ ma jox yenn yenn yenn yenn affaires yi te maanaam bi ma ñëwee ba léegi man maa mujjee ñëw si groupe bi loolu laa bëgg a bi ma ñëwee ba léegi dañ ma yaatal hmm. muy muy amul mu muy OMG ba ci suuf hmm. xam nga ñu ngi may yaatal bu baax a baax te tamit maturité bi ma gis pour man du du du nit ku negatif wala xel bu ñaaw mooy mooy mun a tas groupe bi hmm. peut-être nag euh, label bu mag mun na ñëw gis kamu soxla ko waxtaan ak borom label bi mu bàyyi ko mu dem parce que moom tamit loolu lay ñaan ñaanul nit ñi euh, di di toog si ay loxoom ba ba ba keroog ñii dañuy ñëw ñii dem. mais seytaane daal yàlla na yàlla na yàlla na génn suñu diggante quoi. te bañ a bañ fa yàq dara. ayca cool maa ngi lay cool maa ngi lay charré bu baax a baax euh, parlons un petit peu ci bi nga xamante ni actuellement aussi ça déchire ah ça cartonne barki dem bi ma ko tegee euh, man refrain bi daf ma neex mu aagi xam dama bë dama bëgg ay fon <laughs> kii sëñ man dama bëgg ay bisou waaye dama bëgg ay bisou ay bisou daf ma neex. <laughs> <laughs> xam nga bisu bisu dafa toog surtout ci mois bi ñu ne nii jàmm rek na jàmm na ñëpp di am jàmm alors euh, c'est très cool cette chanson également refrain bi kan moo imaginer loolu mu angi loolu lan la waaw mais jéem a jéem a mu nekk mais mais jéem yow jéem yi <laughs> yow jéem waxoo sa bopp de. moom moom moom <laughs> mel na maa yow yam de jox ko ma xool ne ah. jiital rek. ndeysaan. bilaay gars yi ñoom ñoo baax seen baaxu bopp quoi. Ah. parce que mënoon na mënoon na ñàkk. parce que ku ku ci nekk si ñoom mun nga mun nga composer refrain mun nga def li nga xamante ne nii comme lu gën a nice mafia bi lu gën a nice mu abi mais voilà quoi yàlla baax na ayca cool ñoo def loolu cool refrain wax na ko léegi léegi alors euh, euh, pourquoi aussi vous avez euh, chanté de l'amour gis nañ tamit ngeen invité ci beneen artiste du ma bàyyi ngeen du ma ko bàyyi wax du ma ko wax damay bàyyi yéen ngeen waxal ko seen bopp et pourquoi le choix de cet artiste waaw mais Edmo Flow si vidéo bi waaw mu nekk un gars boo xamante ne ñëpp xam nañ ko si musique Sénégal un gars cool xam nga mm. un gars bien ku mun lu muy def et tout koi xam nga son bi aussi comme ni nga ko waxee rek c'est c'est c'est benn son boo xam ne day wax ci amour mm. te ku xam dund xam ni amour mooy essentiel bi dund quoi xam nga voilà su amul si dund rek dund bi amul importance mm. bon on peut rien faire sans amour moo tax c'est forcément dañu war a way dañu war a def amour quoi bon son bi impact bu mu joxee tamit bon c'est c'est quelque chose de sénégalais comme ni ko Kamou doon waxee sànq parce que refrain bi loo xamante ne sénégalais yi xam nañ ko la quoi man dama laa nopp ba di la bëgg fóon loolu ba ñuy nekk xale dañ ko doon woyantu ñun ñëpp xam mm. après c'est quelque chose de nostalgique boo xamante ne bu ñu ko defaatee tamit nit yi gis nañ ci seen bopp mm. quoi xam nga mm. mooy lu may wax rek musique bi gars yi nañ ko bañ a tënk quoi nañ ko tijji mu am ouverture par rapport ak euh, nit yi parce que affaire yi soriwul mi ngi fii Sénégal lañ nekk lépp am na fi quoi. xam nga bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu defee tuuti tuuti gëstu rek xam ni lépp a ngi fii quoi soxlawuñu leneen. yee man ci leneen li may ñëwaat mooy damay farataal rappeur bu fi dugg wala képp koo xam ne da nga nekk ci wàllu hip hop euh, euh, euh, bu may wax ak yow dama lay wax ci wàllu texte yi saaga yi ci ne mais damay xool ci seen texte vous êtes très très trop même courtois la courtoisie dañ koy gis ci seen habillement dañ koy gis ci seen melokaan dañ koy gis ci seen ay waxin le pourquoi du ngeen insulter ci yenn texte yi di ci wax comme yeneen gars yi. waaw mais question bu bu bu am am solo bi noonu nag question sénégalais ngay posé sax yow di def émission sénégalais yow tam da nga doy waar de sama waay. <laughs> mais mais en fait ñu waxante dëgg gis nga Sénégal. même sooy wax dëgg de. Hmm. mu la na lii dëgg la boo ci boolee saaga rek yàq nga ko. billaay dëgg sénégalais nanguwul lool ci xelam. ak ci hmm. xolam. dëgg la donc comme te ñun tam dañ doon essayer pour toucher sénégalais yëpp dañuy nekk sénégalais def yëfu sénégalais wax ak ñoom ci. yar ak teggin mais jàllale li ñu bëgg a jàllale ñu koy gis ci suñu muy refléter suñu image tamit comme ni nga ko waxee comme ni nga ko gisee Cheikh yow tamit sénégalais nga ko <laughs> question yi doy na waar <laughs> maa ngi koy kontaane bu baax a baax et c'est je vous dis wallahi Azim c'est pas des questions préparées ça vient naturellement parce que tout ce que je dis Grégoire il le sait moi je prépare d'habitude pas mes questions non. vient naturellement je le dis naturellement li ma gis ci nit ki laay wax tout ce que je vois dem naa xool seen ay commentaires j'ai vu que euh, les commentaires restent positifs euh, sur toute la ligne lu ngay gis respect bi nga ah, xam ni am na ci yéen ak seen comportement et c'est ce qui est important en tout cas je vous félicite davantage ñi ngi di ñaanal une très bonne suite de carrière aussi ci li ngeen dëgmal euh, son bi lan ngeen ko nar décembre bi parce que dugg na tey ça parle d'amour mu ah, ne xam na ni décembre dañuy mais ah, ñu ñu ñu wax ci par exemple yow par rapport ak son bi écho yëpp dal nañu quoi que DJ Kheucha moo taal son bi quoi loolu la ñu yi di wax sax xam nga ñu la siy remercier tamit quoi parce que ñaax ki ñaan mooy def loolu bu la neexoon nga ne par exemple gars ay rappeur lañ wala xaw ma leen wala quelque chose comme ça mais comme li nga wax rek c'est bon dañ koy teg quoi xam nga voilà quoi xam nga ñu ngi lay remercier ci loolu <laughs> voilà noonu la demee la kontaan alors lan mooy projet yi actuellement ci lan ngeen jëm ak décembre bi ñu jëm tournée xam nga ñu ngi préparé yeneen vidéo incha allah parce que projet bi des na ay son yu ñu vidéo incha allah ñu ngi ñëw bon décembre bi aussi ñi ngi préparé man maa ngi préparé benn concert boo xam ne mafia bi yëpp dinañ fa nekk. incha allah le 25 décembre sama secteur. merci beaucoup euh, waaw incha allah merci d'être venu. kontaan ayca jëla looy tàggoo yow itam. Euh, di tàggoo xanaa wax heureux ménage sama grand frère Ignace Balla Bass. heureux ménage. waaw le jeune marié. Uh-huh. yaa wër donc euh, di nuyu suñu yaay ak suñu papa yi ak ñëpp ñi nga xamante ne xàmmee nañ ñu di ñu bëggee. boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi recevoir ay messages ay appels ak lépp donc euh, kontaan nañ si yéen lépp yéen la quoi euh, maman déggeen maa ngi lay ziar jo ak képp ku xamee Diéla Banks maa lay ziar jaa ngeen jëf. ay ca tàggoo gaay man moom damay damay damay nuyu si Sénégal yëpp rek. parce que man fu ne laa dëkk. man SDM la fépp ma gars yi xam ne. mooy Mirina bi mooy bu koo la mooy bu koo ngi nii. donc Sénégal yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm jàmm yàgg fii xam nga. particulièrement may may nuyu sama yaay di ko siyaar xam nga naan ko mu yàgg fi te wér lool ak famille bi ak ñëpp quoi ayca yaay kuldis yaay jëlër yaay xëca ah, yaay kaw ñoom ñëpp yàlla na am jàmm yàlla yaay yëpp am jàmm et eh, gars yi nañu xaar léegi léegi TikTok bi incha allah man ak yéen TikTok euh, mafia bi teew na ndax comme que teew nañu fii faw ma laal TikTok bi incha allah euh, à deux jours ñu laal million def naa ko barki démb ak euh, OM laal na 1 million def naa ko ak Moustapha laal na 1 million cent kon gars yi tey 2 millions laa bëgg ndax mafia bi man sama mafia la merci à toutes et tous wala gré ñu dem souhaiter joyeux anniversaire rapidement au natif du jour plus s'il te plaît ki ci njëkk di ko siyaare bu baax a baax génneel numéro anniversaire à lui Babs ñi koy ñaanal un très bu baax a baax moom di ko souhaiter un très bon anniversaire happy birthday et que cette nouvelle bougie dissipe tes peines et soucis beaucoup de bonheur ak kan mbëggee euh, Fall borom Mauritanie yow itam maa ngi lay ba bik wan bik mbëggee joyeux anniversaire happy birthday to ton frère Kheucha Aïcha joyeux anniversaire à Marie Wade également Wade Gassé yow itam lay nuyu moo naa ni la xol bi mel maa ngi koy un très bon anniversaire ak kan euh, anniversaire à Aroka Diedhiou maa ngi koy di ko souhaiter un euh, très bon anniversaire xanaa moom rappeur la ak ay chaînam maa ngi koy di ko jox wàcci waayam Aroka ayca bon anniversaire merci beaucoup à toutes et tous amis chers téléspectateurs ce fut plaisir lundi on a bien débuté avec véritablement mafia bi record euh, gang yi nga xamante ni wax dëgg et à mes chers camarades merci beaucoup à l'international Malick donte sama ennemi nga rek bàyyi ma nuyu la di bu baax a baax grand Nanko grand Touré bu baax a baax di leen charé merci à l'international Abel merci moo gaa sur kenn du yow sama xarit bi merci à Grégoire Gré foog ñu tegal la kenn sawet pour ngay mën a gérer parce que sonn nga sama xarit bi yërëm naa la alaaji bàcci li mu baax mi ngaay mexe merci à toutes et tous et passez un excellent ceebu